mais tey ku mel ni Ahmed xalifa Niass sànq def na benn conférence de presse moom dénigré na nee na sax BBC enquête boobu nga xam ne def na ko mhm. dafa faux mhm. ndax Sénégal fi kenn mosu fi xeex ndax ay mhm. affaire pétrole wala ay affaire Aliou Sall. d'accord nee na enquête dafa faux enquête dafa faux dafa fausse du moins première euh, intervention président de la République Korité wax ci enquête bi. dafa fausse d'accord le jour de la Korité le porte-parole du gouvernement wax ci enquête bi dafa fausse d'accord Aliou Sall démissionné enquête bi dafa fausse d'accord hein euh, El Hadj dem ba TV5 di wax ci enquête dafa fausse d'accord le ministre de la justice génn wax dafa fausse d'accord le procureur de la république génn wax ci def appel à témoin dafa fausse d'accord les Sénégalais vont apprécier moom <laughs> moom la ñu war a wax ne ko na moytu alxuraan bu muy fooye di lañ ko jàppee Khalifa Sall toogul devant tous les Sénégalais sol lu weex tàllam mbax na yére jël alxuraan teg waat terewul dañ ko jël dugal ko ci kaso bi lu dëgg parallélisme des formes moom aussi toog na jël na alxuraanam waat ah nan la ñu mën a accepter moom mu waat ci alxuraan ah ñu nangul ko ko te duñ ko nangul Khalifa Sall xoolal li ma la bu baax toogu fi moom nee na jullit la toogu fi wax suñu président Ousmane Sonko ne jëm boobu xaw ma day jël xeer di ko xoos ba mu ñuul xaw ma mais du jullit toogu ko fi wax ko fi comment peut-on lui accorder moom la qualité de musulman alors comme moom mu dénier ko ñeneen ñoo xam ni defuñu lu dul wax ci réew mi di doxee je pense qu'il est rattrapé par son passé Aliou Sall li mu war a def mooy dem devant la justice dañ ko war a jël yóbbu ko denc ko comme ni ñu defoon Khalifa Sall def enquête def nañ ko ay nit defati leen ko te ñooñu li ñu def c'est moins grave que moom lu muy def moom ci ay milliards et lañ koy tudd Khalifa la ay un milliard et quelque caution am sax bi ñu koy joxe gars yi dañoo bañ na duñ jël caution bi pour lan parce que a tout simplement des ambitions politiques mënuñu ko nangul waatam bi parce que nanguluñ ko woon yeneen justice la ñu wax na def liggéey justice amul alquran amul bible amul leneen nous avons un code pénal qui est là nous avons le droit qui est là nous avons la justice qui est là na justice tranchée waat bi nii génnewuñ ko ci